nan sant yàlla sil xadar ki sàkk laylatul xadar te sant maymunatu ngir moo fonk laylatul xadar nan sant yàlla sil xadar ki sàkk laylatul xadar te sant maymunatu ngir moo fonk laylatul xadar nan jàpp kii di laylatul xadar nee na amul moom benn bis nee na amul moom benn bis nee li mu am mooy benn bis te moo di laylatul xadar nan xam ni soxna may xadim faaxat li kulli sil xadim li annaha bintul xadim tey waaye laylatul xadar soxna Aysatu ak Cheikh Abdoulahat Gaynde Fatma mi nga xam ne liggéeyu laylatul xadr bi lépp ci loxoom lay tege mu ànd kon nijaayam sëriñ Mouhamadul Mahfouz te wax kàddu gu am solo da wax ne mbirum Cheikh Abdou du ci woo kenn ndax dara jaaxalu ko ci waaye mbirum sëriñ Touba nag du ma nangu dara lu koy xajamal te lu ma lu ma fekkeel lu ma ko mën danaa ko ci def liggéeyu sëñ Touba bii wutuma ab xarit wutuma wëllëre waaye saa yu mu ci dëgg ma lee daal ku ma séen xam ne ñor na la su ma la ko waxee ak su ma la ko waxul na xam ne Cheikh Abdou def na la ci boppam te loolu moo ne ci biir njaboot gi loolu moo tax soxna Aysatu fii mu toog daayira yëpp bu ñu ko doon kenn nit képp a ñëwit faaw mu jóge ca néegam ñëw dalal ko recevoir ko na leen sëñ Tuubaa ko tax a jóg waa daayiratu asxaabul jannati bii seetal jumaay Tuubaa ak li ko wër ci njiital sëriñ Babacar Bousso ci jëwriñ ji nga xam ne moo ànd ak nun di sëriñ Abdul Ahad Bousso ñu toog ñu teew fii fi nga xam ne baaxoo nañ fee teew at mu jot mu muy kër soxna may Maymunatu bintu xadimu rasulullah li ñu fi teewe nag di yu bari waaye ñu ngi jël nuyoo boobu ak siyaar boobu ak ñaan yooyu di ko teg ci njaboot gi nga xam ne moom lañu ñoom la ñu fi fekk te sëriñ Cheikh Abdou bu ñu ko waxee waxaale soxna Aïchatou Mbacké danañ mën a yóbbaale ñi fi nekk ñëpp kon nag waa daayira bi te ci tëru sëriñ Abdoul Ahad Bousso ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu àq ci koor gi di ñaan yàlla sunu borom bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal te seen wayjur wu baax wa lépp lu mu am defoon ko ca lépp lu ngeen ciy séentu ngeen àgg ci nu kawe njortu te defe ko na ngeen ko bëgg defee te ànd ceeg seen sago bala noo jàll nag ñu leeral daayira bii nga xam ne moo ñëw fii lan mooy ay yitteem ak lan moo ko tax a jug ak fan la bàyyikoo daayira bii mi ngi tudd daayiratu asaabul jannati bii seetal jumaay Tuubaa ak li ko wër fan la dale bàyyi sëriñ Bousso bi Bousso mi nga xam ne mooy sunu wayjur moo jëli woon ndigal ca Seex Saalihu Mbakke bi nga xamee ne toog na xilaafa ba am ñetti weer ànd ak lenn ci njaboot gi demoon ca moom ne ko ñun dey dañoo amoon yéenay liggéeyal sëriñ Touba sëriñ bi jox ko ndigal ci loolu ne ko kon da ngeen man di setal jumaa ji ak li ko wër rawatina alxamis ji ngir ñi nga xam ne ñooy julli si àjjuma bu ñu ñëwee fekk jumaa ji na mu war a mel mu mel noonu waaye lii li ñu fi ñëwee nii du hasard am na lu ko waral ndax jataay booba kat la muy bette bett la muy xat-xat dafa fekkoon soxna May mii nga xam ne moom lañ ñëw këram ndabi taraanga yooyu nga xam ne moom la daa defal Cheikh Saalihu Mbàkke bàyyi sëriñ da caa tase woon ak moom mu daa di sëriñ Saaliw woo sëriñ mustafa Saaliw ne ko ndab li nga xam ne soxna may yónnee na ma ko fi jëlal ndab li nga jox ko bàyyi sëriñ ñu tàmbali ci seen xéewali ëllëg kon bu yàlla dogalee ñuy ñëw fii di siyaare si mel na ne delloo njukkal la ndax ndab loolee nga xam ne moom la fa soxna may yónnee mel na ne seede la ëllëg ci liggéey bii nga xam ne moom la ñu liggéeyal Serigne tubaa nangu ko nangu ko sëriñ tubaa nangu sëriñ saaliw wax ci ay kàddu boo ko dee ci kàddu yam ca wax lii de da ngeen ci am ngërëmal sëriñ tubaa te boo ëllëgee maa leen koy seedeel bay sëriñ nee na daanako wax ne ko liggéey bii ngeen liggéeyal sëriñ tubaa ci jumaa ji ñun njabootu sëriñ tubaa gi ñun la waroon ndax ñoo waroon a nekk fii batale yi nga xam ne sëriñ tubaa batale na ko li ci gën a rëy gën cee ëpp solo mooy jumaa ji te jumaa ji mënta ñàkk ak set kon bu yàlla dogalee ngeen di ko taxaw yéen fi ngeen li ngeen li leen war yéen a ngi ci kon wóoru leen a defal kenn dara nee na doon daana ko wax kàddu yooyu waaye nag njaboot gi nga xam ne ñoo ànd ak Baye Serigne ci liggéey bi di soxna yii ñuy ñu am jom di am fulla ak fayda di ñu lislaame di ñu bëgg lu baax nga am ne Serigne Touba rek moo leen ñor ñu am yëg-yëg ba nga xam ne Baye Serigne amoon na ko ab yëg-yëg ci ci ci soxna May ndax diggante Baye Serigne ak soxna May dégg nañ ci lu bari ndax ni ko seex Cheikh Mamadou Fadil waxee léegi bàyyi sëriñ da daa xool da doon xool ci soxna May sëriñ Touba te mu gis ko ca nag waaye soxna May it am am fum ko tegoon lool am fu tegoon bàyyi Serigne lool. ba ñun ñii xëy na am na luñ ci fekke waaye am na loo xam ne nettali nañ nettali nañ ko ci muy xool pas-pas boobu ci soxna may bi yàlla dogalee mu dem ba jóge fi ci saaxir loolee lépp bay sëriñ wàññiwu ca dara ndax da daan wax soxna baali wuutu na soxna may de waaye da da koo mat da koo mat ndax li soxna ma may daa def maanaam wàññiwu ci dara waaye da koo yokk da koo yokk ba mu sëkk waaye soxna Bali it am fu mu tegoon Baye sëriñ loolu moom xam nañ ci lu bari ndax fekke nañ ko Sëñ Fallou wax nga ko léegi doyloo woon na ko ci mbirum biiram yu baree bari yoo xam ne daana fa yónnee guddi ajëb ak bëccëg ci yoo xam ne du luñ mën a waxtaane waaye doyloo woon na Baye sëriñ bu wér wér waaye it Baye sëriñ lam doon xool ci soxna May te mooy sëriñ tubaa ji dara jugu ji mu di ko xool ci soxna Bali mu di ko xool ci soxna Bali moo waral bi nga xamee ne mi ngi fi lim daa def ci soxna may di ànd ak daayira bii di ñëw fii addi ji nga xam ne moom lañuy dajale di ko def ci guddi ji guddi gi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa moo wax ne ah. moo gën junniy weer muy juróom-ñett fukki at ku jaamu yàlla ci guddi gii bañ nangu ko am nga juróom-ñett fukki at yoo xam ne nangu nañ sag jaamu mu daa ko def ci soxna Bali wàññiwu ci dara waaye dane soxna May soxna Bali lépp lu ma daa xool ci soxna May mi ngi ci kon nag lañ daa def dañ koy yokk moo tax Baye Serigne ni mu doon jëflanteeg soxna Bali sax moo raw na mu daan jëflanteeg soxna May ngir waxuma dara waaye soxna Bali ngir bëggam lu baax ak pëstéefam ci sëriñ tubaa nga xam ne kër kër budd kër sëriñ tubaa yëpp mën nañoo seede loolu loolu rek waxuma la ginnaaw bi mu nekkee njabootu soxna may waaye loolu rek ku ne mën na cee teg sa bët kon daayira bi loolu moo tax ñu am ab cër ci kër gi waxtu wu ne nag buñ agsee tey ci bés bii niñ ko daa defee ñu àndandoo njaboot gi kilifa gi nga xam ne moo nekk sunu kanam muy sëriñ bu Bousso sëriñ Abdoul Ahad mi ngi nii moo ko fi teewal ñu àndandoo jël seen addiya jox jox la ko ngir nga defal leen ko ci bisub sëriñ Touba boobu ni nga xam ne noonu noonu lañ ko daa joxe sa way jur te mu ci daa wax lu am solo nag ndax daana wax bàyyi sit naan lii ngay indi addee ji ànd ak pësteef ak taxawaay bu ma sëkk-sëkk ci liggéeyal sëriñ tubaa kon nag soxna si sëriñ Cheikh Abdou lii mooy taxawaayu daayira bi ji nag barkeeloo lañ ko jàppee ngir ngeen dugal leen ko ci ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi te ngeen ñaanal leen nag ngeen ñaan bu baax a baax li nga xam ne moo leen tax a jóg mooy ngërëmal Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Saali waxoon na ko ñu di ko dabu waxtu wu ne ngeen ñaanal leen ba lépp loo xam ne day fakka fakkatal nit ci liggéeyu Sëriñ tubaab bi mu bañ leen a fakkatal ba fañ bëgg àgg ñu àgg fa ak mbooleem njaboot gi mbooleem taalibe yi mbooleem soppe yi liñ bëgg lépp ñu am ko zahir ak baatin ci barkeb Seexul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu nee na ci turu soxna Aysatu nee na ak ci turam ak ci turu ki nga xam ne mooy kilifa kër gi mu di sëriñ Mouhamadul Mahfous nee na di ci ràññi nag bu baax sunu waajur wi di soxna Ndey Mbàkke mi toog neena na di la sant nag ci sab taxawaay ak sab taxawu jàppoon ak moom nee na ko nee na xëy na moom day li muy génn ci biti waaye nee na nag teewul xam na lépp nee na yéen nekkoon wéttalu biiram nee nag yow bii boobee ba tey sa taxawaay boobee dañ koo yokk kon neena na mi ngi lay sant di la gërëm di la xamal ne tey jii yaay soxna baali ci kër te nee na loolu nag anam yëpp la nee na sa sa doon soxna baali yëmul rek ci Seex Awa Balla ji buñ jëlee wetu sëñ Basiiru bi da koy mate sëf yàlla yëpp dogal ci wet ko nga ngay suñu mbokk ndax di jarbaatu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma nee na kon loolu day na ak cër sëkk ci yow nee na di nuyu soxna May Bachiru May ak soxna Muslim ak soxna Penda ak nee na ñi mu gisul ñëpp rek nee na mi ngi jéggulu sax ci lim bi nee na Cheikh Abdoul Ahad ñi ngi lay sant bu baax yow ak njabootu baay sëriñ gépp di la ko yóbbante ci sëñ Babacar di jaar ci sunu bokk yu baax yi jàll nag ci mbooleem daayira bi nee na daayira bu ne dana fi ñëw waaye bii day ci yi nu gën fonk la bokk ndax yu baree baree la ca jiitu rek ba ca jiitu mooy fi mu jóge ndax dañoo nekkoon ak soxna may mun a xam fi mu tegoon soxna jaaratullahi mariama bus yéen ñii yéenay bokk soxna jaara soxna si mën naa ne te loolu may bëgg wax ñëpp mën nañ koo seere lu ëpp ñaar fukki at ku juddu bu dee góor a sëñ bu mag bi bu dee jigéen a maam jaara loolu moom ñëpp mën nañ ko koo seereel amut waneen tuub ci mujjëm gépp nag poroxaan itam ku ne gis na nam ko fonke woon waxtu ne bu fa daan dem da ko daan waajal yóbbaale it mboole mbokk yëpp soñ Moustapha wax soxna Ami mu berndeel ko fa nga xam ne daanaka rek beneen màggalaat poroxaan lay doon kon am na lu mu jàppoon soxna jaara moo doon reyukaayam reyukaayam la doonoon moo doonoon léppam kon bu ngeen jógee ci kër soxna jaara jël fi ñëw fii ci kër soxna may loolu moom ñun njaboot gi barkeelu lañ koy jàpp te lii sëñ Bas wax na lii dañ koy barkeeloo nee na du yéen yéen a barkeelu nee na ñun ñii ñoo barkeelu ci yéen ndax soxna si loolu defoon ba diggante Baye Serigne ak soxna si itam nee na loolu moom umput kenn loolu sëñ Bas wax na ko léegi jaaroon nañ ci kon loolu lu ñu dund la. ba buñ demee ba gis soxna may itam ba gisatu ko mu taxawu nag soxna baali ci zahir ak ci baatin man mii waxtu ne dama daan xirtal ci Baye Serigne loolee bokk na ci lu jokkoon suñu diggante di ma wax na ma del siyaare ci suñ Baye Serigne tey sàkku ci moom ay ñaan xam naa ne ko amoon ci Baye Serigne pas-pas la ku ko gëmoon la te loolu réccuwu ko taxawaay bi mu taxaw ginnaawam lépp loole mottali kóllëre googee rek la woon yéen itam nag booba ba tey kóllëre ga sàmm ngeen jàpp ngeen ndax mel na ne moom Baye sëriñ nu mu jàppe woon kër gi yéen da ngeen a jël jàpp googa boole ko ak seen jàppuk bopp nga xam ne kon day fulu tey jii foog naa ne nii ngeen amee pas-pas ci daayira bi ba yóbbu ko foo xam ne ba bàyyi sëriñ di dund yéene woon na ko waaye àggu fa loolu day teg tegtale seen pas-pas ndax sëriñ Tuubaa du maye moom di nangu loolu moo dal kër gi mooy li leen dal fenn fu ne la mu fa def te mag ña liggéey ko bu fa pas-pas ba nekkee te ña wuutu mag ña day yokku day dem ca kanam dara du ca wàññeeku. wax ne moom la ko sëñ Mourou Moussa waxoon loolu laay baamuwaat ne ko dey lu baax baax na fu ne waaye Touba la gën a sakkane kon ñëpp nañu ñëw ci Laylatul Qadr yi te bu ñu dikkee ñu def li sëriñ bi wax loolu mooy lan mooy jàng alxuraan jàng xasida jàng xasida bernde fanaane dundal guddi gi fanaane dundal guddi gi ba bët set te yaraaxal jataay yi te yaraaxal lii la sëriñ bi wax ca loolu lañ nekk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah